moom laay xaar ci président mooy mu waxtaanaat ak sénégalais yi ci jàmm yàlla na ko yàlla defal Sénégal yi déglu ko ci jàmm dégg ko tamit parce que déglu dégg parce que par exemple mag yi dañuy wax ne euh, lii bokk ci coow li xam li waral coow li moo ko gën te comme ci moom lañ war a xamee nanu bàyyi sunu xel ci ne yàlla ak yonente bi bàyyi nanu fi mag ñi daanañu wax ne ku dund ba déwén lekk ba déwén mais nag léegi fi mu toll nii ngoon sénégalais yi nañu essayer comprendre président bu génnee solution solution boobu nañ ci coow wax ci xalaat yi ba ñii ko war a appliquer xam ne lii la def loolu ñuy def mu jig ñu ñu ànd ci jàmm parce que mag ñi dañu wax ne lu dul jàmm jàmmaa ko gën waaye nag mu am lu tuuti loo xamante ne dafa nekk muy ñu bàyyi ci xel ne am na ñu ñu dee daaw am ñu dee daaw jéeg am ñu dee ren te déwén dina am ñu dee te ñii di deewaat fii ci deux mille vingt ji ñu ngi fi mboon yàlla ci boppam dafi exister ba abadan nun nañ wékk suñu bopp ci yàlla ma wax sànq ne lii nga xamante ne moom laa bëggoon président gën see wax mooy pétrole bii bëgg a taal réew mi te loolu noonu mu seet naka lay demee waaye man sama yóbbante galgal bi ma si yóbbante galgal moo yóbbante bi ma yóbbante sànq président na wax gaa yi compteur yi ñuy indi si réew mi dara baaxu si maa ko wax SDE laa nekkoon lii nekkoon SDE nag moo nekk fii si ci Senelec compteurs yi ñoo baaxul su ñu demee di gën ay compteur dañuy undi ay dix façons bu ñu indee dix façons essayé yëpp xool ba ciy gën a gaaw a marqué boobu la ñu monteel ni ngi si kër and wax naan indil nañ ma si benn maa ngi woon si quatre vingt dix cinq cent quatre vingt dix sept mille may wax ñu indiwaatal ma beneen tegal ma mu nekk six cent xaw ñaata mille léegi nii te lii nga xamante ne moom laa yoroon Senelec mu ngi si un million huit cent et quelque wala deux millions et poussière ngoon est-ce que loolu neex na ma bëgg si boole yor sama njaboot bëgg si bëgg a samay samay bokk samay bokk nag bu ma waxee samay bokk mooy sénégalais yi ngoon nan laa war a def est-ce que loolu baax na ni mu bone si man noonu la bone si euh, gii xaw ma nag Marie Sagna noonu la bone si keneen seulement ñoom dañ jëkk a yuux rek nanu bàyyi yooyu te nu toog wàkkilu si yàlla seet nu ñuy defee église bi ñaan si façon jullit yi ñaan seen façon parce que loolu dafa am solo si réew beneen affaire bi réew mi nii ñu ko war di doxalee mooy naka maamee daan doxalee te ñoom ñii fi toog kenn ko si nekk dafa dafa ne lii lii naka Patrick la tubaab yi tubaab yi comme seen seen patron sax tubaab ah président France ak maamu France maam maama waa France Éric la tudda Éric ak euh, Michel ak ñooñu patron boobu nga tudd naka Macron nun duñu ay tubaab ay africain lañ africain ñun suñu système mooy kere keeb kinkiliba boo ko taxalee rek indil ñu problème ñun duñu ay français ah mën na nekk France nag dem France ñëw baagante ñëw mais nii gars yi bëgg a doxalee si réew mi nan ko wàcca mën naa làkk tuuti français boo ma génnee si mbedd mi xaw a rey nit ñi ak ay sàmbata ngeeg Fatick Farla or que bu ma tamee taxaw si français yi bu ñuy wax ma ne xàll di xulu di enregistré nu kenn rey fii benn chef nekk fi ay nekk benn tagaru kii rek planton bu nekk fi ci biir ministère wala planton bu nekk ci biir. hôpital bi dina rey ak ay français sénégalais yi dañu bari complexe bu nekk ci ñoom léegi may ñaan rek pour que yàlla na nañu yàlla suppil sunu gaay yi yàlla mi dara teewul yàlla na leen suppi ba nu dox ci Afrique xaw ma africaano xaw ma naka lan moo tax ñun suñu bopp ñu xeeb suñu bopp man loolu moo mën a xarit lii ma neex gis nga tey jii tey suma biram bu bi naa ko dugge fu ne sama euh luma manta doon manuma def leneen la dul affaire yu ki euh fête gi ñoo wax ni sax baxna parce que feetu 31 décembre dañu wara bigal bégal xale yi ah? bégal ñëpp ku nekk nekk jamm do loolu a day jamm la parce que chrétien yu mom li mais ñun dañ ci na potax ci bir dugg ci mo la yok ginaar yi yokk soos c'est très bien na guni yi nekk si jàmm mais guni na état prévoir pour xale yi am fu liggéey maa ngi dégg léegi benn waaye mu naan booba moom dafay déposé pour am ay am entreprise ñu naan no il est âgé fii kenn âgé bari na faux bulletin la gars yi doxe ñëpp man mii sax faux bulletin lay doxe xam nga sama faux bulletin lu ma si def soixante six te maa ngi ko fi booba dafa ma tax a màgget dafa ma tax a dee mais problème bi mooy nañu mel ni ñu war a mel nañu fexe gu ñuy liggéey discours bi président de def tey yàlla na ko gaa yi dégg ci jàmm te am ci dég-dég bu baax am si yéene yu rafet nga xamante ne kenn ku si nekk bu xëyee parce que lii war si réew mi nii nga balee sa buntu kër ndooy def da ngay puudar réew mi pastel ko jekkal ko ba ne boy waaye boo bàyyi sa buntu kër mu ne ñax ñaxar yàq nga réew mi bu kenn wax ne diwul ñu président rek moo war a defar président dafa war defar waaye man mii itam man Jaraaf Youssou Ndoye dama war a defar aliwu dafa war a defar Seck Ndiaye dafa war a defar waaye yow nga defe ne président rek moo war nekk fii di defar déedéet moom ay branche am joxe na ko ba pare mooy li man ñu ma doon wax sànq jox na la cër pal na la melal ni nga war a mel boo melul ni nga war a mel naka nangu jox ko keneen un point un trait beneen affaire bi mooy à part xale yi liggéey lan lañ fi amate encore ñaan yàlla jàmm yokk rek ngoon lii ma la mën a wax daal mooy si réew mi nañu wàcc seen façon yi ñuy def ax ah, boo dokonte bi diw saalum saalum la warul liggéey fii diw nii la diw naa la nangam nangam téetéet patata loolu yëpp ay tappale la tappale yi fi am nañ ko arrêté te président bu génnee bii paa bu waxee ba pare na na ut ay agent secret yoo xamante ne ñooy topp nit ñooñu parce que sénégalais léegi tolootul foo koy joxe mbir rek bàyyi ko de bu nit ñëwee di soow ñu naan non kii nii xoolal paa bi naka mu tudd sax naka sax boo ko Samba Dieye ay attaques yi du mu wax d' accord nga wala d' accord loo waaw boo ko Samba Dieye kii magam magam jëm moom mu toll moom dina topp rek si ay ay ay mbedd la wax rek alal la yoroon liggéeyoon ko pour njabootam. lu tas yaakaaram léegi mu bëggoon ku ko réparé réparation boobu président tam na ko jël oo oh, ko mu ñëw mu wax ak moom ba mu xam bu baax li mu wax ñu topp ji ko ba mën a alalam jooju delloo ko ko wala déet parce que du ma nëbb temps am ay tooñeel yu bari yu mel noonu mu ngi am na si Bocar man mii sax am na si man te ñoom ñëpp tam xam nañ ko ba ma di xaar sama benn waay moo ko ne teeb te mu ngi si ñëw lu tax kenn ooma boobu léegi dama jaraaf lu tax sa oto nangam ak nangam lu tax kenn ooma dama jaraaf nangam ak nanga xam nga lu ñuy bañ non non non dañuy suturante suturante suturante boobu nag baaxul am réew la problème bi am réew la du ab ëtt ab ëtt dañuy oo ëtt bi ñu toog si biir néeg waxtaan am réew dañuy wax ci rajo yi ku nekk xam ku def Dakar ñu bàyyi journaliste yi ñu liggéey génn ko si biti su ko defee kenn ku nekk di nga am looy ragal waaw yal na leen yàlla aar doolu